gis la commune de Thiès lu mu gàtt gàtt yewe soixante-dix imam ku ci taxaw ne DG Sénégal def samay jàkk te ñun ñu doon ànd moom politiquement on était même pas au courant kon loolu dañ ciy gërëm DG di ko ci sant pour nag ngoon gi wax dëgg yàlla tey ñun ñi ànd ak DG Siré Dia on fier xam nga lu tax on fier parce que DG Siré moom moo def lu tax ñun ñu ne on fier xam nga àdduna loo gis rek dafa am départ ba ñuy départ ak DG Siré Dia euh, sama yaay ami ko la Dia ma koy remercier au passage mu laa doon ànd ak tournée ba minuit nit doon wax kan mooy Siré Dia ñu dem a dem dem ba responsable yi ñëw ñuy dem dem a dem a dem ba wut responsable ba wut permanence dem di dem di dem ba à la fin ñu bu kon tey nit ñi doon wax kan moom Siré Dia bu njëkk ba waaye tey nit ñi ñooy jóg di wër DG Siré Dia c'est parce que aussi DG Siré Dia bu muy départ sa politique à Thiès dane je serai aux côtés de la population thiessoise naa jàppale jeunesse bi ci li ma yàlla jox danaa jàppale jigéen ñi ci ma yàlla jox famille religieuse naa leen jàppale te yàlla tax lieu de culture naa leen jàppale te yàlla tax naa jàppale jigéen ci financement mais bu muy départ il avait dit que ne il s'engagé politiquement pour jàppale président Macky Sall waaye tey Thiès buy wax te yàlla tax il n'y a bu mën a taxaw bu ñu dajaloon leader politique Thiès yëpp je pèse bien mes nekk opposition et au wax dëgg yàlla DG si Dia lu mu def dans la commune de Thiès et le département lii nit ñi seede tey à la poste li nit ñi seede tey dans la commune li nit ñi seede dans le département et au niveau national Thiès amul leader bu fi def lii mais li tax mu am yéene ji parce que doomu Thiès la li tax mu am yéene ji parce que daf ko war a def. li tax moom yéene ji président Macky Sall ko koo sas mu sasoo ko waaye li tax moom yéene ji aussi dama koy wax waa Thiès discours bi neex na gërëm sant yi neex na des centaines d'emplois neex na des centaines de groupements financiers neex na jàkkee jumaa yi macha subvention yi arcos ñëpp ñëw seede lépp loo xamante ni bii à Thiès équipe bu nawetaan lépp loo xamante ni muy la maire lu président du conseil départemental ñoo ko war a def DG e boo koy def waa Thiès a ko wax tey. boo département bi ñoo ko wax mais en même titre nag aussi tey daa am lu ñuy wax aussi mooy loolu ku koy def mun nañu wax ne mooy maire Thiès loolu ku koy def mun nañu wax ne mooy président conseil départemental bu njëkk ba dama daan wax journaliste ba parfois ñu may takki ne naan ma faal da ngay jaay siré ja rek da ngay wax rek waaye tey moom foog naa ne ku ñëw fii tey Mamadou waxul de Thiès waaye ak Dakar waaye postiers yi ñoo ñoo wax kon loolu bu amee aussi ñuy wax ne aussi Thiès waaye il est temps que Thiès aussi la population thiessoise yëpp il est temps que population département Thiès yëpp mobilisé wu derrière le DG Siré Dia parce que yéen a taxaw ne moo baax yéen a taxaw moo ne mooy faj seen aajo yéen a taxaw ne moo régler seen problème kon kookee it dafa am yéene mooy yéeneem mooy jàppale ko yéeneem mooy lan jàppale président Macky Sall bi nga xamante ne tey lépp loo xamante ne DG Siré Dia mën na ko à Thiès dans le département c' est grâce au président Macky Sall yéeneem aussi mooy lan jàppale président Macky Sall au niveau national parce que ñëpp gis nañu taxawaay ak cofeel bu président Macky Sall am ci directeur général fan yee passé président dafa recevoir directeur ne ko Siré Siré vraiment Siré je compte sur vous à Thiès xam nga loolu président Macky Sall bu yëkkatee kàddu yi waxu ko DG Siré wax dëgg yàlla na ci moom yaakaar. mais yaakaar boobu ñun ñoo ko war a assumer yaakaar boobu ñun ñoo ko ci war a taxaw yaakaar boobu boobu de population département Thiès ñoo ko ci war a jàppale et j'espère bien mobilisation bi am tey engagement yi nit ñi jël détermination bi ñu am et le bilan positif du DG Siré Dia loolu dee naa ne routine lay doon ci ñun incha allah rabbi parce que ñun daam lu ñu gëm ñun ñu ànd ak DG Siré Dia mooy chaque jour je le dis il n'y a aucun leader bu xam te ni la commune et département bilan am amul kenn ku ko fi def te bilan président Macky Sall aussi tey Thiès dañ ciy sant yàlla xam lu tax NSTS tey ubbi na ay doomu Thiès ñoo fay liggéey tey Thiès am na transport en commun président Macky Sall moo tax 699 millions financé nañ ko jigéenu Thiès président Macky Sall moo tax route secondaire yëpp à Thiès tey c'est grâce au président Macky Sall. tey ñu gis ne bien bientôt incha allah rabi le président Macky Sall dina rénover la régie des chemins de fer à hauteur de deux milliards cinq cent kon xam nga président Macky Sall bu defee loolu Thiès euh, DG Siré Dia def li ngeen seede yéen wax ko ma dégg nit ku tekkiwul dara ma dégg gàccey Thiès ma dégg ki nga xam te ni il est toujours bon dernier et ma dégg ki nga xam ni ba président Macky Sall gagné élection yi dafa amee dépression ba ñu yóbbu ko fermam à Ngeexoo ma dégg ki nga xamante ni en 2007 moo taxaw ne population thiessoise et sénégalaise jàppale leen ma ma jële fi Ablaye wat ñu dem ma ci biir campagne électorale la la def par une porte dérobée quelle preuve de lâcheté quelle preuve de mépris envers la population thiessoise et sénégalaise mu dem pale de teg dil jaay boppam Ablaye wat xam ngeen mbokk yi dama ne am na loo xam ne bu ko doomu aadama defee ci àddunaam kooku warul taxaw di jox kenn leçon de morale ndax moom ci boppam moral ak moralité da koy daw sa Seck moral ak moralité da koy daw ndax jomb na koo def jomm na koo wax mais nag dafa am kilifa diine bu mu sox ne yàlla suñu boroom li mu namm ci doomu aadama li mu namm boo ko bañee limite boo ko bañee du la faat du la dóor dara koy wax nga bañ nga waxaat ko muy bañ ba mu ñaaroon ñetteel ba da koy rëdd sa kaw te Idrissa Seck looloo dal ak président Macky Sall danga koo bañ ñeexu la xam nañ ko parce que da ngaa tëdd nelaw di wor da ngaa toog di kàcc da ngaa toog di sàcc alalu Sénégal ndax yow yaa taxaw ne ak Alassane Samba Diop je le nomme ne yow yaa sàcc xaalisu Sénégal séddoo kook say mindaan séddoo kook say mbokk ak say xarit kon kooku tey Idrissa Seck Macky Sall nawloo la Siré Dia du la nawloo ndax ki tax ni dafa sàcc ñun amuñu moom wax kon bu dee moralité la du Idrissa Seck mooy kii war a taxaw di wax honneur ak moralité pour le président Macky Sall Macky Sall récréation boolewu koog Idrissa Seck récréation boolewu koog DG Siré Dia Idrissa Seck urbe bi mu def tàggatoo la xam na ne incha allah rabi à Thiès le DG Siré incha allah na koo dóor ma ci kawam li tax ma ñemee li may wax parce que dama xam li ci dëkk bi li tax ma ñemee li may wax parce que DG Siré Dia tey li mu def à Thiès am nañ ci yaakaar ci élection yi jëm beneen aspect bi may wax ci échec gu Idrissa Seck mooy que ne wax dëgg yàlla am Tamba ku ñu jox conseil départemental bu Thiès presque deux ans ngay wax dignité ak honneur weer bu dee. Idrissa Seck dem jëli salaire am en tant que président conseil départemental Idrissa Seck waa Thiès ak may dégg musul teg tànkam conseil départemental lu dul président séance ku am dignité am honneur foog naa ne doo fayeeku xaalisu askanu Thiès te doo fa toog doo fa liggéey doo jël seen carburant nga war koo liggéey en tant que président conseil départemental di ko defee tournée nationale ça c'est du vol c'est du vol te dama ne ku am dignité ak honneur du ko def ñu def la meeru Thiès durant presque dix ans weer bu yàlla sax nga dem jël sa salaire weer bu yàlla sax nga dem jëli sa carburant te buñ ci jigéen looy def te jaaroo mbooloo mairie bi yàqale ko tayle ko boo nekkul ngeexoo nekkoo Dakar yaa nga bari seen jëms kon Issa bu dee échec am na après douze ans nga nekk Thiès treize ans quatorze ans parce que chemin de fer yaa ko bradé NSTS yaa ko bàyyi mu daan président Macky Sall ñëw ubbi NSTS te may rappeler ne chemin de fer ba nga ko baraadee yow Idrissa Seck tu étais actionnaire à la veille des chemins de fer am nga loolu c'est un fils boo xamante ne bii c'est un fils doo xool lu mel ni chemin de fer muy patrimoine u Thiès nga fe nga bokk ci ñu koy jaay ba pare doon ci actionnaire kooku boo ne bëgg nga Thiès da nax Thiès waay waaye nag di naan adduna lépp loo leen sa loxo lay nàcc loolu bilan boobu say échec bilan boobu say trahison moo tax tey yow sa Seck de jour en jour da ngay def décoro ngalal politique ki doon gagné région Thiès tey ngay gagné département ñu ñëw ba tey looy gagné commune Thiès te ci élection yi di ñëw incha allah rabi le DG Sénégal dina la régler sa compte parce que du président mag Sall mbokki Thiès mbokki Sénégal bés bii aussi dafa am cachet que cachet bi mu am mooy aussi man Mamadou Fall en tant que coordonnateur des activités politiques bu DG Sirédia sur ordre du directeur général de la Poste, M. Pape Siredia, je lance officiellement la campagne pour un oui massif pour le référendum du 20 mars 2016 au nom du directeur général de la Poste et le directeur général ordonne à tous ses responsables à Dakar, à tous ses responsables dans le département de Thiès, à tous ses responsables dans le département de Mbour et aussi au comité de soutien de la poste, qui sont à Kaoulak, qui sont à la direction, qui sont partout au Sénégal, de battre campagne pour un oui massif. Au nom du directeur général de la poste, M. Sireja, je demande aux étudiants de Saint-Louis, je demande aux étudiants de Dakar, qui travaillent et qui soutiennent directeur général de la Poste de battre campagne dans les campus universitaires pour un oui massif lors du référendum du 20 mars, Inch'Allah Rabbi. aussi mbokk yi ci turu directeur général may lancé officiellement campagne bi nga xam te ni mooy que ne Sénégal gépp taxaw ne wii li nga xam te ni mooy référendum bi président Macky Sall teg ci kaw taable bi pour sénégalais war cee voté le 20 bii di ñëw incha allah loolu tey bokk ci lu gën a sabab suñu lii départ bi tey la te ñun duñu waxantu à travers sa pays le DG Siré Dia va battre à travers ce pays ses responsables ses militants et ses sympathisants vont battre campagne et à travers ce pays incha allah rabbi et dans ci biir diaspora bi aussi parce que tey lu mel nii boo demee Turquie boo demee France tey am ñoo xam politiquement ñu ngi jàppale DG Siré Dia kon ci diggalu directeur général képp koo xam te da ngay jàppale DG Siré Dia képp koo xam ne soppeem ndox DG mu ngi lay ordonné au niveau national et international ñu jóg battre campagne jóg convaincre sénégalais yi. pour que vraiment ñu voté oui ak taux de participation bu honorable au nom du directeur général leneen li may terminer mooy aussi doomu aadama politique da nga koy ñeme référendum bi parti yi taxaw nañ ko boycotté dañoo xam ne bu ñu battre campagne pour le non président Macky Sall dañ di battre moo tax ñu taxaw naan nañu boycotté parce que xam nga boycott moom ak abstention c'est diamétralement opposé mais dañu foog ne nañ ko def seen bilan mais nous espérons avec le directeur général Nous espérons, avec le bilan du directeur général, nous espérons, avec le bilan du président Macky Sall nous espérons ak avancé yi nga xam te ne bii référendum bi mën na ko indi Sénégal ci institution yi vraiment ci lu ci ci démocratie Sénégal loolu tax na Sénégalais aussi yëpp war a jóg taxaw vraiment de voter oui te aussi may rappeler lenn Sénégalais yi nañuy teey tey ñuy ñaa ngi taxaw naan président Macky Sall dafa dafa waxoon defu ko mais dama leen di fàtte lenn le président Macky Sall en 2012 le président Macky Sall était dans l'opposition conseil constitutionnel ba mu délibéré président Macky Sall dafa taali otoom dem baat campagne yàlla jox ko ndam kon pour quelle raison mu taxaw waat ne moom président Macky Sall il jure devant la constitution sénégalaise de respecter et de faire respecter la constitution sénégalaise conseil constitutionnel sénégalais jox ko ndigal jox ko seen xalaat ne ko lii mënoo koo def ci mandat bi nga nekk président Macky Sall lu mu deful dans l'opposition en tant que président en tant que euh, président de la République il parce que dafa am valeur ak vertu yoo xam te ni da koy respecté lu mu métti métti il va le respecter et les aussi yi nga xam te ñoom ñoo ko sasoon mu respecté constitution bi jógoon di xeex en pour le respect la constitution sénégalaise sénégalais yooyu ñoo war a taxaw tey massivement pour que référendum bi jàll président Macky Sall am ci ab passage la rek ci moom ñu ngi dem en deux mille dix sept euh, incha allah ci ay élections législatives d'ailleurs Siré à travers le Sénégal mu ngi koy dëgmal parce que moom ambition c'est pas sa personne ou ses ambitions mais ambition c'est l'ambition du président Macky Sall pour l'émergence du Sénégal mais ambition mooy le président Macky Sall assise politique boo xam te ni na mën a gouverner ce pays il faut impérativement mu am majorité à l'Assemblée nationale et mooy li nga xam ni mooy li prioritaire et fondamental pour moom mooy lan. liggéey loo xam ne à Thiès président Macky Sall liggéey loo xam ne au Sénégal incha allah bi dès le premier tour DG Siré Dia fera partie au niveau national et international de ceux qui vont donner un deuxième mandat au président Macky kon mbokk yi lii doon kàddu directeur général su ma ñëwee toog fii dama ko war a rotal mais nag aussi am na loo xam ne mënuma ma ko ñàkk a wax su ma gërëmee ñoom Moussa Ndiaye gërëm ñoom Manan Tamba. vraiment kii fa fi toog yëpp ñoom Père Diakhou ñëpp ma gërëm leen parce que aussi bon du ma ki mag ci politique Siré Dia du ma ki ci ëpp xadar wala ëpp ci xam-xam mais DG bu jëlee politique am jox ma ne ma kii la coordonnateur am na ñoo xam ne mat nañ ma yaay mën nañ ma pap muy ñiy toog te en particulier Ndeye Daba Khady Fall aji mag ñoom Père Sow ay xat directeur la bu leen neexoon ñu ne kii xale la mais vraiment nangul nañ ma cëru kilifa lu may doon doon xale kon tey mënu ma leen ñàkk rendre hommage jeune yi nga xam ñoo yor organisation bi vraiment ci turu directeur général satisfaction totale en tant que jeune engagement bi ñoo DG macha allah commission féminine bi aussi macha allah seen taxawaay dañ leen di féliciter la presse ñun ñoo ko bokk parce que vraiment chaque moo ko seen liggéey ngeen di def suñu liggéey la ñuy def waaye suñu leen wooyee ngeen wusi DG Siré Dia nee mu leen gërëm leen aussi nag am na loo xam dama koy wax da koo xam te ni xaw ma anamu shérif lu muy doon doon lu mu may bëgg bëgg bëgg lu may maa ko gën a bëgg lu mu ma jàppalee jàppale taxaw ma du sama jëmm jëmm ma a tax parce que day wax ne man kenn du sama xarit aw ma mais l'intérêt de mon grand frère moo ma ñor te man ku ma xam-xam nga ne intérêt Siré Dia moo ma ñor parce que man je fais de la politique te derrière de la euh, Siré Dia incha allah je vais mais it nag am na loo xam te ni du waxu mbooloo Chérif Dia xam naa xam naa Chérif yaa ngi may taxaw ci biir ak ci biti loolu man nit boo gërëmul yàlla nit doo gërëm yàlla tu es un ami tu es un frère Baye Cheikh Moussa Ndiaye ñëpp li ñu dëgmal c'est un combat boo xam te ni man mënu ma ko porter mais ñi nekk Dakar ñi nekk Thiès département région bi yëpp ñoo koy bokk porte ñoo koy bokk porter pour le DG Siré ñoo koy bokk porter pour le président Macky Sall te ensemble bi. ñewwuñu da ragaluñu dara tiituñu kenn te on va sa ce travail dans la commune de Thiès et dans le département on va continuer dans les autres départements du Sénégal te Thiès amul doomu aadama mbindeef buy tee man Mamadou Fall ak waa Kër Sénédia yëpp du ñu dem Grand Thiès saa ñu neexee du ñu dem Daaru Salaam saa ñu neexee balaa beeg buntu dépôt moom kenn saa ñu tu ndax Sénédia kon Thiès a dit oui au référendum du président Macky pour le 20 mars je vous remercie